mbokki internaute mbokki Sénégal yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV yi da leen jàmm tey ñu ñëw àddu wax si révélation yu doy yi nga xam ni moom mii di Clédor Sène moo ko yëkkati daal di koy jëmale si njiital Pastef bii di Ousmane Sonko yooye nekk ay kàddu yu yéeme yoo xam ni moom mii di Clédor Sène mi ngi avertir bu baax a baax ñeel ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko yooye kàddu bokk na si jamono jii ay pexe yu mag te bon yi nga xam ne ñu ngi ko koy waajal ngir faagaagal ko laata 2024 yooyu ay pexe sax bokk na si ngir jéem koo éliminer mu bañ a bokk si élection présidentielle 2024 yooyee ba tey si ay dossiers yoo xam ne ñu ngi koy waaje ngir yëkkatiwaat ko daal di koy tegaat si kaw ndoddu njiital Pastef yi donte ni sax dossier bi nga xam ni moo si gën a siiw mu di dossier Adji Sarr Sonko donte ni boobee dossier sax dem nan dema dem ba xam ni li nga xam ne ñi ko si tuumaal dara nekku si dëgg waaye jamono ji ñi ngi ba beneen dossier boo xam ni boobee dañ kaa bëgg a yëkkati ngir jëm koo éliminer jëm koo teg loxo ba du mën a bokk si li nga xam ni moo di élection présidentielle 2024 yi ba tey si ay kàddu moom mii di Kell Tall Sène bokk na si sonal bi nga xam ni ñii di ay kujjeem si wàllu politique sonal nañ ko ko ku si ni président ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñoom loolu yëpp nekkul dara tiit bu métti ngir gàtt bu Ousmane Sonko nekkee président ndax du leen teg ay daan daal di yëkkatiwaat ay dossiers yoo xam ni ñoom dañ ko doon nëpp nëppal si seen i biir ba tey sax suñ sukkandikoo si ay kàddu moom mii di Ousmane Sonko bañ ko déggee si nga xam ni moo di campagne législative yi moo di kat bis bu doonee président dina saf si ñoom ñëpp ñaar nit ñi nga xam ni jamono ji ñoo féete ci côté état bi di sàcc sàcc bu métti ñaar yi nga xam ni moo di xaalisu askan wi moo di Kakaw seen si ay kàddoom mbokk na si muy ñaaw te di métti bu baax a baax jamono ji fitna bi nga xam ni ñu ngi koy teg si kaw ki nga xam ni moo di Ousmane ko di ko fexal ak di ko tegal ay pexe yoo xam ni bis bu sottee du baax benn yoon si kaw njiital Pastef bi